ajuwul ngay liggéey ben turu jinn am jinn yo xamne ñoo lay gis seen bop bëgg leen seen bop su baba jinn jojo loko wax mën nako def lu melni nga budé budé jinn jutit jinne la lu melni nga taxaw turu yalla mu nga dem ba gis jinné nopp ko nooj ko tuub loko ànd ak mom jël ko soxna waye nag dina am lu digal dina am lu ter dina am lu bañ da la koy wax da ngeen di saxtonté soko ko bëggee baax soko bëggul mu dem seet keneen bu dee jinne yéefa ji nag moom fu mu la gisee nga bëgg ko maanaam yow yaa koy woo mu ñëw te jinne soo ko wooyee du nekkul ne day tëb tëb ñëw ñu bëri tey dof danoo jël ay turu jinne jinne mën nga ko woo mu dikk nekk ab bët néeg bi yëpp di bët nga toog ci kaw bët bi di liggéey mën nga ko woo mu dikk nekk ab bopp baa mu nekk gémmiñ ñaari sàkkar yàlla maanaam nekk ab sàkkar yàlla nga nekk ay bëñ rek nga néeg bi yëpp fees dal ak bu dikkee nga wax moom mun la loo bëgg gis nga saa bu la waxee loo bëgg hmm? day mel ni waa àdduna bi yëpp doonoo maase naan la takk ay rajo naan la loo bëgg loo bëgg loo bëgg loo bëgg loo bëgg su boobaa boo amul maîtrise yow su bopp dangay def baa nga daw génn am na benn jina joo xam ne ñu baal ñu ci leeral bi yaa buusu la tudd moom cegab jëne la ñu baal ñu jëna joo xam ne dafa jaay boppam nit ki bu fekkee da koy liggéey day simmeeku def yarmu neen yor kurusam du sol lenn nag di liggéey turoowee di liggéey turoo ba dem ca wanag wax ku te kurusam la yor du kurus nit nit kiy ñaan moom mooy momi woo jëna ji mooy simmeeku def yarmu neen di woo jëna ji di ko woo di ko woo di ko woo di ko woo di defi pexe di defi pexe ba am lu mu yëg ci boppam dem ci wanag wa simmeeku def yaramu nen di jël kuusam di wér di ko woo di wér di ko woo di wér di ko woo ba jinne ji ñëw bu dikkee mu ànd ak moom boo ànd moom bu yëgee ne dara ma ngi génn ci moom maanaam bu yëg boppam ci lay profité bin li muy bind ci naq bi lépp lu mu bind ci naq bi bu jógee dina fa nekk bu jógee mu wadd waaye buy nopp ne fes buy nopp di dem am na ñu bëri ñoo xam ne loolu moo may alal mais alal jooju la wut. kon euh, ni ñu jégalu si kàddu gi ni ni caaga amee si doomu aadama noonu la amee si jinne noonu waaw jigéen ñi nga xam ne dañuy jaay seen bopp ni mu amee ci doomu aadama noonu la amee ci jinne noonu la amee ci rab même rab su la gisee bëgg la ndax comme nit ni muy gisee bëgg ñoom rab noonu la ñuy gisee di la bëgg su la bëgg gisee bëgg sag guddi mu feeñ la ku la bëgg seeg yow sa guddi mu feeñ la ku la bëgg seeg yow.